waaw mooy loolu dañuy sant rek mooy loolu. nga nga préparé combat ba mu des deux ou trois jours ñu ne la adversaire bi blessé na loolu kii na de. non metti na moom wax dëgg yàlla parce que da ngay jël loo am ak loo amul yëpp def si làmb ji waaw parce que lépp lu ñu yaakaaroon rek def nañ ko quoi pour ñëw bëres mais nag yàlla nii loo ko tuddee tamit dañuy sant rek xam ne tamit am na ay mbër yoo xamante ni ñoo ngi fi nekk ay champion bu am problème mu combat. kon ñun yàlla bu defee ba ñuy dem ñu ne am nañ contrat contra bi dem ba si am ndog-ndog tamit dañuy sant rek mooy loolu doolee seebu la ñun moom ay Baay Faal lañ lu yàlla dogal neex nañu. combat bi waxuñu la léegi ban date la wala kañ nañ ko war a fas yéene bëriwaat wala wala nangam. noo gars yi instant yii nii waxaguma dara ku waa wax dëgg yàlla waxtaanaguma sa ménagère waxtaanaguma ak seen promoteur bi Mor. waaw di ko ma soow moom tamit quoi parce que lii premier journée am la bu grand combat bi amoon dina gën a neex waaw mooy loolu. bëriwu ngeen te te stade bi gis nga ni mel ak mbooloo. billaahi billaahi moor ko moor moo mën bës rek. Mhm. mais mais mais tey euh, yow ak Abu moom waxante bi amoon na jotoon ngeen a diggante mais ci sa ay wax su ma lay dégg ngay wax ak moom dafa mel ni yow danga nga sa bëre de trop dafa Abu ñaase Abu dàqu la bëre daal pour yow. way mooy loolu xam nga tey jii làmb moom boo amee nit ki contrat maanaam lépp loo xamante ni rek. man noonu laay dundee quoi su ma amee kontra yow waaw man contrat lañ amee jàmm jeex na xam nga bu contrat bi jeexee jeex na làmb moo ñu boole xam li ma la bu dee làmb la du ma ko may dara du ma si maslaaw ak góor bu dee làmb rek du ma ko may dara mais bu làmb ji jeexee après mooy loolu noonu la demee. noonu maanaam daal loolu moo tax nga doon waxtaan ak moom di di maanaam ni nga doon wax rek moom. loolu moo wax andi wax jooju. non li ma doon wax noonu tamit yàlla xam ne ni ku dee ak sa bàmmeel billaawal kitaabi aba tey jii sax làmb amul soo waxee yéen yi du ko safe mais ba làmb ji taxawee ba léegi li ma doon wax noonu loolu laa gëm te ba fi ma toog nii nii may waxee ak yow nii suñ ma Abou Ndiassé ñëwoon léegi léegi ñu ne ma kaay bëre damay wàcc léegi bëre barki maam Seera Fall te Abou yorut bëre bu la jaaxal yorut doole bu la jaaxal non déggoo ma man amul lu may sóoraale si moom amul dara rek si làmb quoi may sóoraale abu Ndiassé si dara amul. par fi mu nekk ak yooyu. loolu tamit waru ko na nekk loo nga xam ne pression lay doon sa bopp. ak mbooloo mi ñuy drainer ñoom. non non loolu du problème ba man damaa bëre mbapat ba sonn Babacar. billaay man aw ma mu yooyu noonu aw ma problème wut ay kii nii man ak fu mu munti nekk tey jii nii bu doon terrain bën-bën la ñuy bëree wak muy mbapat sax man damay dem. bu doon mbapat la mu nekk terrain bën-bën wala terrain njaase gi damay dem. kon xam nga terrain bën-bën. waaw déggoo ma la xanaa moo mooy loolu. yow da ngay fréquenté jàmm gën wala. non non fréquenté wu ma foofu de. amoo fa ay am naa fay nit kay. am naa fay nit ñu bëree bëree bëri kay. billahi ñu bëri dañ ñoo xamante ne xam nga làmb lañ xamante am na ñoo xam ne xamante nañ avant làmb dañ may bëggee dama leen di bëggee wër na sëñ Bamba mais xam nga làmb moo xat quoi. mais nit ku nekk quoi di nga am ñoo xamante ne da ngay am si ñoom cofeel affaire yooyu noonu waaw mooy loolu. di di ñaanal ñëpp jàmm rek mooy loolu noonu ñëpp mooy loolu waaw. di ñaanal Abou Ndiassé xam nga yàlla teggil ko affaire mu ñëwaat mooy lool bu ñu waree bëree ñu bëre mais bu tamit bu ñu waraatee bëre tamit li ma waxoon rek laay waxaat waaw parce que man moom làmb xam nga du ma bàyyi mu sedd dama koy topp ba mu jeex. waaw ah, kon bàyyi woo fi mu nekk nii. non non làmb la maa moom jeexagul contrat lañ nekk. Ah. fii ba mardi ba may xam lu leer kay maak Abou Ndiassé ñooy bëre laa jàpp nii. Ah. yow daal doo teggi la nga daan def entraînement doo ko wàññi doo damaa nekk si contrat. bu ma bu ma bu ma teggee affaire yi saison bi day tëj même pas un mois mu tijjiwaat après mooy loolu ma xëy suba ñu ne ma combat bi taxaw na mooy loolu man dama si nekk rek. yàlla baax na Giro ne Giro amul doole Giro gars adversaire ko doole par rapport ak Giro suy bëree day mel ni loolu du feeñ parce que sa combat fii donte ñàkkoon nga ko yow ak Ndiaye mais kera dafa mel ni ah Ndiaye daanu la ci ni mu ko bëggee woon wala ni mu ko neexee bokk. non xam nga tey jii nii Ndiaye tamit di ko di ko ñaanal tamit moom mu am combat quoi parce que champion la mais xam nga maanaam tey jii maa moom comme fi ma yegg noonu si làmb ji wa tey jii bu doon maa ko fa yegg làmb ji jeex na te du ma ko dóor waaw. fam la yegg boo ko fa yeggoon doo ko dóor. waaw moo bu ñu naan moom ëpp doole dama naan damay ree rek parce que man xam naa sama bopp boo xamee sa bopp nag xam nga wax ji dina bëri mais da ngay noppi rek yow. kañ la doon neex nag mbër nga am contrat ñu boole la ak sa adversaire ngeen di bokk entraînement di yeewoondoo ñu dugal leen ci benn centre ngeen di yeewoondoo di jugandoo xam nga di profité nag quoi di waxaale ku si ni xam nga sunu grand Ibulaay xam nga ak ñum Modou Lo ñum Papa Sow di leen wax ne xam nga parcelle dafa bër ay champion yu fa nekk quoi ku si mel ni Modou moom tey ji bu tegee nii loxo rek ñëpp dem xam war nañ mën a xool parcelle maanaam champion yi fa nekk ñu xam ne ñii ay mbër lañ ay champion lañ te am na ñu nekk seen ginnaaw ñu jël leen bu saison bi tëjee ñu jël mbër yooyu yobu leen xama nga def si ñoom quoi ta yàlla rek tax. même bu dee hivernal ak yéen. voilà benn deux mois sax xam nga jël gars yi casé leen da koy jar. kon su ma la déggee Modou Lo da nga koy demande moo Lo ak Papa Sow hivernal bi saison bi tëjee ñu jël xale parcelles yi mbër yi hivernal ak xam nga man loolu laay ñaan quoi di si woo tamit ku si mel ni père ba xam nga ku si mel ni père ba Mansour ba xam ku si mel ni tamit Amadou ba ñëpp rek képp autorité bu dëkk parcelle loolu dañ la koy ñaan xam nga woo mbëru parcelle yëpp ba si Grand Médine mbëru Grand Médine bu mënee nekk ñëpp. mais loo laaj leen loo xool ci Modou Lo ba choisir mu jël leen tey def ak hivernal loo xool loo gis ci moom. non tey jii Modou ñun bu ñuy wax li ñu gis ci moom duñ fi jóge quoi. waaw bu ñuy wax li ñu gis moom moom wax dëgg yàlla duñu fi jógee Modou moom gaan dañ koy ñaanal jàmm rek jàmm rek lañ koy ñaanal di ko wax nag xama nga mu gersu gars yi te yàlla rek tax waaw mu defal mu defal loolu xam nga mbaru parcelle yu ndaw yi quoi waaw. loolu daal moo ko ñaan Modou ma maa ko ñaan quoi wax dëgg yàlla. waaw mu jël mbër yëpp. mbëru parcelle yëpp. ñëpp nag ñoo xam ne dañuy bëre arène nekk si. mu jël leen yóbbu leen xam hivernal boo xamante ni maanaam xam nga ñoom ñoo siy jàpp quoi defal mbëri lépp waaw. mais tey Modou moom booy dégg combat ñu naan la léegi jàpp nañ ko mois de novembre mook Ama Baldé mais waa Pikine rawatina waa kër Ama ñu ci bëri ñenn ñi dañ jàpp ne Modou mii ñemewul Ama yow booy dégg loolu te xam nga Modou yaakaar naa ndax yéen a bokk parcelle loolu na nooy dégg wax jooju. non combat boobu noonu xam nga tey jii nii lu yàlla tudd moom kenn mënu si dara mais amaana yàlla da koo tuddagul quoi amaana xam nga bu waree am combat boobu noonu bu waree am dina am amaana wax ji bëri na si coow li bëri na si mooy loolu mais xam nga ñoom ñaar ñoo jël nañ avance mais dañuy ñaan yàlla rek combat bi am ak jàmm incha allah rabbi parce que loolu mooy am solo quoi waaw parce que mooy loolu yàlla baax na. non non loolu gars yi dañuy wax ne ama làmb moom ku si nekk am nga droit wax lu la neex mais Modou Lo moom ku ko xool ne dafa ragal amaana da ngay yàq say say wax rek hmm. waaw. kon ñoom ñoo ñuy wax da nga yaakaar dañuy yàq seen non comme si wax naan Modou Lo dafa ragal loolu moom ku ko wax dëgg yàlla. da nga combat koy wax. non xam nga tey jii Modou Lo bu ñëwee ren dafa blessé te mosuñu ko gis ci combat mu ne daa blessé xam nga tamit dem na ba ci combat ma Gris Bordeaux mu am blessure comme li ma la wax rek jaam ak pexeem xam nga yàlla ak dogalam mooy loolu Gris Bordeaux at blessé mooy loolu dañuy ñaan rek ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm. ba bés ba allah rabbi kontaan ci yow. noonu la demee ñoo far jàmm ci yow. non non bëre gu ma arène mbapat laay bëre. waaw waaw. yaa ngi gagné waaw maa ngi gagné kay. ñoo ko arène. non waaw gagné naa bu am fas. gagné naa bu am fas. fas gagné nga ci lamb du mbapat. waaw dem ay waalo fu di bëre mbapat man kase waaw. gaa nañ ma jox si lamb yi gaa nañ ma jox combat. waaw sama morom yi nekk si lamb waaw. assurance wala Ibulaay ku ma si jox combat ma taxaw bëri. assurance jox la combat wala Ibulaay. waaw ma waaw wane sama bopp léegi kay barki Serigne Bamba. Ibulaay xanaa war na laa mën a dugal ci journée bii di ñëw. ay suñu barki Serigne Bamba mba. bilaay walaay suñu ma joxe ma duy cat. Ibulaay nee na da lay tëgg. barki Serigne Bamba. waaw noonu la demee yow. waaw suñu ma joxee laay ma joxe komba barki Serigne Bamba ma duy fii yëpp laa lay wax ni. bilaahi waaw petit. përi moo ngi nee moo duy ale bee yëpp léegi nii te su ma tarkindaa yi tey sa turandoo sa sa turandoo waroon bëri kii maa ko njëkk a tudd Abou Ndiassé wala déggoo ma maa ko njëkk a tudd loolu sama maam moo ma koy wooyee suñu demoon grand bi moom man géwél laa jërë jërë. sama ko mbéy sama ah, xoyaan. ngom nga. waaw. ak Waly Seck. waaw Seck laa sant. barke Sëriñ Bamba billaay walaay taalaay nañ ma jox combat billaay walaay ma feesal laamu yi léegi stade bi barke yàlla nañ ma jox combat. yow daal yaa Sëriñ Bamba Mbacke. waaw fu billaahi grand birin waay yow fa laa juddoo barke alxuraanu karim yoroo billaahi gars dañ ma war a jox combat suñu ma joxee combat léegi ñu comprendre barke alxuraan waaw noonu lay demee mais sa mais sa mais sa mbër mi. waaw daa non daa war a am combat Ibou Laye dina ko jox. waaw Ibou Laye dina ko jox waaw incha allah. waaw billaahi mbër ah. waaja lees rek Ibou Laye lan lay dénk yow. billaahi ah waaw. billaahi noonu la demee nag Baye grand bab si yow nan lay bëggee rek yow. waaw ñu ngi lay suivre bu baax a baax li ngay def rafet na ko waaw. di la ñaanal jàmm rek. waaw affaire yi gën a yokk waaw.